organisation bi mi ngi tàmbalee ci démb ku ne organisation xam ne bala ngaa am barab bu laab boo xam ne mënees na ko fay def barab bu laab bu si kaw ñëw nañ saytu ko doonte mi ngi doon taw jamono yi yëpp waaye ñëw nañ saytu ko ba xam ne barab bi mënees na fay toggee mënees na fay defee lépp loo xam ne sëriñ bi teg na ko suñu loxo muy togg yi nga xam ne war nañ koo togg séddale ko gani sëriñ bi ku ne xam ne togg ku ne togg laaj na ak sell te bu ne sell tamit laaj ak set ndox mu war na laa jege ndax si ngay si ngay sete waaye yére yi ngay doo am yenn yenn yenn yenn yenn jot yi bay dem di waaj ak di waajaat xam ne am na ñoo xam ne sax ñaari mbubb lañ indaale ngir buñ waajee si biir ba mu ba biir gan ñi ñu yoraat mbubb mu yees nga mu yees la par mën a solal mbubb moomu kon loolu bokk na si wàllu organisation te danañ ko ñaax si mbooloo mi ndax xam nañ ko xam nañ ko ndax du gan ci ñoom du tay rek lañ ko njëkk a def ndax jàgg ko liggéey fële si Jaalibatul Maraaxib si bisu xasida ba nga Sëriñ Muntaxa wootee fii tamit ànd ko waa Hizbut Tarqiyyah tamit ak Sëriñ Hamza Sëriñ Hamza daal di feddali waat kóllëre googu joxaañi la si rom yu waañ kon looloo tax sax ñu yor ñu yor waañ ñi looloo tax mu yor waañ ñi kon ñu ci sant Serigne Touba baax a baax ilahi li khayri kul man laysa yaqra'u aballa زود المد يصير لهم زود تجرع يبوح جب أن يبكي ويمحى تجرع أيا خادم المختار لا تنسى صبره فمن ينسوه فالماء ومنه المقدر أبو بكر الصديق خصوص صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنه يا ربنا